alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ci ni war nañ koo jottali jaamu yàlla yi rek euh, dinañ euh, def suñu kemtal ak kantaan jamono ji ñu ngi fi nga xamante ni moo di hôpital El Hadji Ibrahima Niass sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziare baax a baax sëriñ Mamour Cissé jamono ji yaa ngi hôpital xew-xew bi mën nañ mën nga cee dellu si ak li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg bi. Ah, euh, mbooloo mi man la ñu ngi fii hôpital Alaaji Ibrahima Niass di am benn euh, cas bu tiis benn mbir bu ñu naqadi ñun waa kër Baye Niass rawatina kër imam Assane Cissé ak imam Cheikh ak euh, Cheikh Mahi Cissé mooy booy yi nga xamante ni bandi dañoo duggoon seen kër démb mooy ki nga xamante ni mooy Abdou Aziz Cissé ak doomam moom la moom la gaa yi ñëw duggoon seen kër ba pare taw leen ay jaatu far na xale bi nga xamante ni moom mooy doom ji moom gaañu na léegi nii ñu ngi nii du koy dugal ci morgo bi mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. mbir mu mm-hmm. loolu daal moom moo fi xew jamono ji euh, Abdou Aziz mu ngi foofu waaw Abdou Aziz moom mu ngi tëdd mu ngi koy jéem a sawe moom waaye am nañ ci yaakaar bu baax mais doom ji lañ amutoon yaakaar jëm ko kawe def nañ lu ne affaire bi daal li mujj mooy yàlla jël na ko. xale yi xale bi yan yan yan blessure la amoon. ah. xale bi ma ne yan blessure la amoon. waaw xale bi amoon na lu tollook euh, juróomi euh, caw jaase ci bopp ak benn ci loxo bi. baaraam yi nag yëpp moom dañoo amoon ay dagg-dagg parce que dafa téewoon jaasi ji daf ko téewoon ak loxoom moo tax gars yi su xam nga jaasi soo ko téyee boroom da koy rocci suy xëcc nii rek day dagg moo tax baaraam yi dagg yu bëri loolu bokk na ci te moom ndeysaan dafa mujjoon a daw dugg ci benn douche jël tànkam bi sës ko ci bunt bi gendarmerie yi leen jëlee woon foofu sax di leen indi hôpital bi ñuy ñëw pour ñu ubbi euh, douche bi sax problème na la te tànk bi da ci dafa fees dell dell dell dell dell ak deret waaw mais euh, damay damay wax rek toujours ne gis nga suñu hôpital bii mhm. ku fi am malaat moom moo xam li fi metti dëgg hôpital la mais nag des na ndaxte nit da indi malaat ñëw taxaw ñu ne la duñ ko laal feeg fayoo lii feeg jëndoo lii feeg defoo lii ñoom ñu ngi leen indi ci fajar gi gars yi di leen téye nañ leen fii ba ay côté dix heures man laa ñëw man ci alfayda laa déggee hmm. cas bi bi ma ñë ma ndékki ba pare bi ma ñëwee hmm. laa leen fekk ñu ne duñu leen laal ci laa génnee cinq cent mille teg ko ci kaw taabal bi na leen bismillah yi ñu commencé jënd garab ñu commencé def ay analyse ci boobu lañ leen dogal laal fekk li euh, li tubaab yi di wax c'est trop parce que hmm. kii li mu tuur ci deret yëpp bi mu ñëwee immédiatement waroon ngaa xool ndax deret ji daa manqué hmm. am déet nga def analyse seet ban groupe sanguin la bokk nga monteel ko deret hmm. te man bi ma ñëwee expliqué naa leen naa leen leen xool leen kii bu baax ndax manqué na deret wala manqué wu deret waaye nanguñ maa déglu nanguñ maa faale ñu ne ma dañuy def rojo dañuy def nii man bi ma xoolee kanam gi ñu ngi wex tàll nga xam ne ni kii dafa manqué deret mais ñu ngi nekkoon ci jéem koo sawee def nañ lu ne def nañ lu ne def nañ lu ne kaay jàppale ñu fii jàppale bind nañ ci nag li tollook ay quatre cent et quelques mille ci garab yëpp jënd nañ ko teg ko ci kaw taabal bi amut benn ordonnance bi ñu nu boo xamante ni jënduñ ko waaye yéex a jël bi yéex a faj bi. Mhm. loolu bokk na ci. damay wax ne ne nit su ñëwee am nañ fu muy toll da nga koy jël en charge nga jël sa ordonnance yëpp teg su ñëwee su tanee mbokk yi balaa ñu koy yóbbu nga leen na fay nangam mhm. dégg nga. Mhm. du bouger un mètre fariñ loolu. su fekkente ni itam dem na ba nekk am néew ngeen leen seen néew du ngeen ci jot te fayu leen lii boobaa danañ ko fay jël seen néew waaye nit su ñëwee toog nga ne doo ko laal doo def dara loolu dafay metti ba gis nga lii ñu ci jëlee nii wax dëgg yàlla neexuñu yàlla nag moom moom lim jël moom moom lim fi ba dañuy sant yàlla rek dellu suñu bopp ci yàlla xam na ne métti na doomi américain la nag hmm. waaye dafa tuub ñëw fi ànd ak baayam ànd ak yaayam ñoom ñëpp ñëw toog moom ci ñaata ñaata yaayam mi ngi woon foofu ci kër gi tànk yi baaxul laaluñ ko hmm. mais ñaari xale yu góor lañ daal jël nañ xaalis bi yóbbu nañ lépp mais rey nañ bakkan fi mu toll nii hmm. moom ci ñaata at la toll woon xale bi xam naa ne mi ngi ciy dem ay vingt su amee daal vingt trois ba vingt quatre hmm. loolu lay toll waaw tey dëgëroon na moo tax waaw macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ bi Cissé. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ci leer ci leer jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. ñu ngi koy masaw bu baax a baax euh, njabootu Cissé wax dëgg yàlla.